waa mbokki seen info ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam te di leen ndokkeel ci weeru mag wi di shahru ramadan waaye di leen jaajëfal beneen yoon ci seen liggéey bu am solo bi ngeen di taxawee saa su nekk di jot leen nit ñi xabaar yi muy lu ama am solo ñu ngi leen ci jaajëfal di ñaan yàlla sàmm leen te taxawu leen naka noonu noonu lañuy ñuy nuyoo mboolem julit ak foo mën a nekk rekk ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu nuyoob lislaam waaye naka noonu di la ndokkeel ci weeru koru màgg wi di ñaan yàlla boole ñu nangul mbooleem lépp luñ ci jàmm wala te boole ñu jéggal suñuy rëcci rëcci te ñu bokk ci ña koy teewee déwén incha allahu taala tabaarakallahu seen mbokku imam Mouhamadul Bachir Darame mi ngeen miinoon ci émission bii di Azikra moo fas yéene dellusiwaat àndaat ak yéen ci seeni waxtaan comme niñ ko baaxee woon bi iznillahi taala ah bu ko defee comme nag dañoo nekk ci weer wu màgg muy weeru ngëneel weeru yërmande comme niñ ko xamee ñoon ñëpp rek su ko defee kon tey sunu waxtaan dañ koy jagleel ci loo xam ne dafay aju ci biir weer wu muy weeru koor eh, weeru koor comme niñ ko alquran jàngalee mooy weer la woo xam ne yàlla daf ko farataal ci jullit yi ñu koy woor woor ga nag nekkul pour xiifal ñu wala pour ñi régime wala pour wàññi dépense non non loolu yëpp am na ci waaye dafa am objectif bi tax yàlla farataal ko ci ñun dëgg-dëgg objectif boobu nag mooy attaqwa mooy ragal yàlla ragal yàlla boobu nag ci lañ fas yéene jukki ci sunu waxtaan tey ji incha taala ndax yàlla wax na ci alquran ne ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala min qablikum laallakum tattaquun yéen sama jaam ñi nga xam ne gëm ngeen nangul ma farataal naa ci yen ngeen war weeru koor comme ni ma ko farataalee woon ci ñi leen jiitu woon ndaxte la yéen ngeen mën a ragal yàlla kon cause bi leer na laallakum tattaquun waaye yàlla ci mbaaxam bimu farataalee weeru koor pour ñi jéem cee góorgóorlu ba man koo ragal mu la ci bu ñaayee na la ci fexe ba def ko trois parties partie bu nekk mu am lum la ci dig te loolu mooy li ñu yonent bi alayhi salaam jàngal ci hadis ne weeru koor fukki fan yu njëkk yi yërmande la fukki fan yi ci topp nekk ak magfira mooy jéggal fukki yu mujj yi nekk atqu minan naari maanaam yàlla ki nga xam ne tey dogaloon na ne dafa war a dugg safara yàlla mën na ko gracier bu dee góorgóorlu na ci weeru koor woowu kon tabaarakallaahu loolu lu ama am solo la defe naa ki nga xam ne dafa bëgg nga ragal ko mu lay tertoo yërmande kooku defe naa bëggal na la lu baax ki nga xam ne dafa bëgg nga ragal ko mu lay dig ak maxfira yaakaar naa ne kooku lu leen boole du war a jafe waaye ki nga xam ne moo lay dig ne la soo ma ragalee wala soo góorgóorloo ci weeru koor bi danaa fexe ba gracier la dëgg dëgg yàlla kon yàlla sunu borom bëgg na ay jaamam su ko defee kon dafay yell dafay war ci ñin képp koo xam ne teewee nga weeru koor nga fexe ba occasionné wu daal di ci góorgóorlu ndax lépp loo lépp loo xamante ni aju na ci ci ngëneel yàlla dig ñu ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ñu ko nga fexe ba bokk ca ñi say am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne kenn gënul perte koo xam ne fekkee na weeru koor te jegaluñ ko kon yàlla buñ bokk ci ñu perte ñooñu mbokk yi kon tomb buñ faskee ne waxtaanee tey mooy naka lañ mën a occasionné wu ci biir weeru koor yi ba mën a am ragal yàlla googu nga xam ne moo tax ñuy woor kon loolu tey moom lañ bëgg a décortiquer ñaan yàlla defal ñu ci tawfiix waaye lan mooy ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla mooy lan mën naa laa wax ne suñ ne ragal ragal yàlla boo ko waxee dafay uuteeg ragal leneen lu dul yàlla xam nga luñ miin ci ragal lu yàlla mooy tey su fekkee danga nga ragal nit ki wala leneen soo ko gisee yaa ngi koy moytu di ko làqatu ngir bum la gis pour du la lor waaye suñ ne ragal yàlla dafay wuuteeg loolu ragal yàlla nag mooy ngay fexe ba ay luwaam yi nga xam ne mu ngi ko tëral nga koy jëfee yi nga xam ne day da ci tere nit ñi lim ciy tere nga fexe ba koy moytu ordre yu joxe nga koy jëfee immédiatement su fekkee amoo benn ngant kon tey lépp lu muy santaane moo xam lu aju ci wax la wala ci jëf la nga koy jëf lépp lu muy tere moo xam la aju ci jëf wala ci wax la nga koy teet kon loolu mooy ragal yàlla mbokk yi ragal yàlla boobu nag lu ñu ko mën a may mbokk yi ci biir weeru ko yi loolu lañ bëgg wax mooy lan waaye ragal yàlla boobu lépp mu koy lu koy sabab mooy jëf lu baax waaw te nag nañ na ñaar fi nekk jëf lu baax wala jëf lu bon kon soo bëgg am ragal yàlla dangay ngay fexe ba teet li nga xam ne mooy contraire jëf lu baax waaw ndax soo ko bàyyee rek da def lu bon ñaar yooyu rek moo fi nekk jëf lu baax wala jëf lu bon kon boo fexee ba teet jëf lu bon rek yaa ngi jëf lu baax kon bokk na ci yu ñu mën a dimbale ngir ñu mën a am ragal yàlla mooy ñuy fexe ba teet jëf lu bon góorgóorlu jëf lu baax jëf yu baax yooyu nag yaatu na lool bokk na ci yooyu yi di dénk di ko dénk sama bopp ci biir weeru koor yi mooy al qira qiraatul quran nañ góorgóorlu mbokk yi fexe jàng al quran ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañ ci hadis ne weeru koor su jotaan jibril alayhi salaam dafay ñëw di jàngalante ak moom alquran ba weeru kooram bu mujj bi sax ñaari kaamil lañ jàng kon nañ profité ci diiraaw weeru koor bi ñu góorgóorlu di jàng alquran même su fekkee sax munoo ko à cent pour cent nga góorgóorlu di ko def même sooy liifantu sax baax na ndax loolu yëpp tiyaabu la benn xaraf boo tudd yàlla bindal na la ci tiyaabu te nag tiyaabu boo jëf ci biir weeru koor du bokk bi nga xam ne danga koo def ci bi lu dul weeru koor ndax boobu dañ koy dañ koy gonfale dañ koy ful ba mun na dem ba à soixante pour cent wala mu ëpp ko kon loolu it maa ngi leen ciy bàyyiloo xel mooy jàng alquran comme ni nga xam ne suñ mag ñu baax ñi tabaarakallahu weeru ko su ñëwaan dañuy teg seen programme bu bees te yooyu ñu ciy jiital mooy jàng alquranul karim bokk na ci yi ñu mën a dimbalee ci ragal yàlla mbokk yi muy asalaatu ala nabi sallallahu alayhi wa mooy ñuy góorgóorlu ba di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax baril julli ci bi moo lay permettre nga mën a am shawqu mooy nga am cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boo amee cofeel ci yonent bi rek dinga nga mën a jëf mbooleem lu yàlla gërëm waaye boo ay lépp lu yàlla tere da koy mën a bàyyi ndax cofeel ak yonent bi moo lay moo lay diriger di la teg fi nga war a tegu kon moo tax luñ ci man nañ di ko baril mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yooyu mooy zikrullahi di tudd yàlla yaa ayuha alladina amanu zkurullaha zikran zikran kathira yàlla suma borom nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ma dee leen ma tudd tudd goo xamante ni gu bëree bëree bëri la tudd yàlla nag yaatu na mbokk yi kon nañ fexe ci diiraaxu weeru koor bi ñu góorgóorlu lépp loo si man di ko def te nag bul ko wékk rek ko wutal temps nee naa damay liggéey su ma wàccee soog tudd yàlla même fi ngay liggéeyee del tudd yàlla subhanallah walhamdulilah yëpp dafa bokk ci xeet yi ñuy tuddee yàlla te yooyu yëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na wax na tiyaabu ci nekk kenn xamul nu mu toll waaye mbokk yi bokk na ci ñi ñuy mën a dimbale ngir ñi mën a am ragal yàlla boobu mooy lu ñuy tuddee al infaq fi sabilillahi mooy lu ñuy wax aide mooy dimbale sa moromam jullit dimbale sa moromam jullit surtout loolu ndax umpale wuñ ne ñun ñëppay woor waaye nag am na ci ñun ñoo xamante ni tey jii nii ndogu day naa të pour ñu am ko dana métti lool wala bañ ko amee it duñ ko amee ci anam bi nga xam ne moo gën waaw kon nañ di bàyyi xel loolu dimbale sa mbokkam jullit mi nga xam ne tene nga ko lii la yàlla dénk ci wërsëg soo manee sax même su weeru ko bi teroo nga jël benn bit teg ko ne lii pour way néeru doole yi laa koy defal baax na wala soo mënul loolu it même su fekkee sa poos léegoo léeg boo kiiyee des na domp ci jox te loolu nga ciy dépensé waxuma tiyaaba ji mais yàlla sama borom dala koy delloowaat ndax wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu te tamit lu gaaw a gaaw la ci may ragal yàlla goog nga xam ne moo tax ngay woor lu gaaw a gaaw la ci may la ko mbokk dafay ñaaw lool si jullit dafay ñaaw lool si jullit mu wóor leen ne kii sa mbokkam julli la woor na ni yow te tey jii ni ndëgum du mat wala maanaam doole bi nu tey yenn ndëgu yi nga xamante ni tey moo war moom war ci njabootam yow nag yàlla jox na la moyen bi nga defal sa bopp ba mu des nga jàllal bi ko xëy dugalaat sa biir frigo mbokk yi loolu dafay ñaaw loolu si jullit loolu du melokaanu jullit loolu du melokaanu jullit nañ di bàyyi xel loolu rawatina ci weeru koor bi waaw mais di charge frigo yi rek muy fees ayoo xëyee rek tabaarakallaahu di kii kon loolu nañ ko di bàyyi xel xam ne am na ñoo xam ne mel nañ ni ñin te seen loxo jot seen ginnaaw nañ di bàyyi xel loolu waaye bokk na ci mbokk yi yu ñu mën a may ragal yàlla waxoon naa léegi ne ñaara fi nekk benn ngay jëf lu baax wala jëf lu bon mooy nañ di bañ a sànq sunu temps ci loo xamante ni amulul ñi benn njëriñ te loolu miin nañ ko tey ci société bi surtout ndaw ñi sama kalaas gi da ngay dégg ñu ne dañuy dàq koor mais baat boobu war nañ ko xoolaat bu baax koor ak nim baaxee tiyaaba ju ci nekk lim la mën a jëriñ yëpp mu jublu ñëw si yow yow nga ne da koy dàq suñ mag ñi de duñ daan def noonu suñ Tuubaa radiyallahu anhu daan nañ wax ne weeru koor su jubluwaan da ngay gis muy bind ay xasida di ci ndokkeel weeru koor kon nga gis na ñun tey uti nañu suñ mag ñi nañ daan doxalee ci weeru koor léegi nag tey ñun bokk na ci dàq koor boobu da ngay gis tey guddi duñ nelaw dañuy nekk ci garam place yi wala ñu nekk ci salle de jeu yi wala ñu nekk ci boîte yi wala nga toog sa kër nekk ci téléphone waaw lu nekk nga dugg lu nekk nga dugg nekk fa nag ba bët set wala ba fajar nga xëdd commencé nelaw dangay gis ne kooku tey du gaaw a yeewu du gaaw a yeewu waa léegi yow bëccëgu weeru koor bi nga xam ne ci nga waroon a profité lu ci tey tey amutoo ko parce que yaa ngi nelaw kon yow lu tax ñi naan ragal yàlla ci koor lañ ko mën a amee est-ce que dinga ko am kon mbokk yi samay morom maa ngi leen di bàyyiloo xel ci loolu maa ngi leen di ci bàyyil wax xel bu baax a baax a baax ndax amul benn sens loolu moo waral léegoo di nga gis ñoo xam ne woor nañ ba koor gi jeex waaye tey du def benn effet ci ñoom ah, dañ mel ni wooru ñoom waaw ah, léegoo léegi nga gis ñoo xam ne ñoom dañuy génn dem plage kooku moom waxumal dara waaye kooram sama na fa yàqo dem ci géej gi dem ci plage yi gis fa loo wartu gis waaw ah, weeru occasion la toogal sa kër soo mënul jàng alquran sax déglul ay waare ndax du ñàkk dinañ la jëriñ mais bul ne kii déglu woon naa ko non non pourtant même musicien bi léegoo léeg bu tëggee li mu waxoon lay taxawaat di répéter rek te pourtant yaa ngi koy déglu kon amal fu lay déglu li nga xam ne moo la ëppal importance que lële loolu soo ko defee ci ngay mën a jëriñu kon nañ bàyyi xel ci loolu ak di bàyyi wax yu amul njëriñ yi wax yi amul njëriñ dañ ko bàyyi surtout nekk ci garam place yooyu yëpp am na lu ko ëpp sens mooy fexe ba nekk ci lu lay jëriñ ndax waxtu dafa seer borom xam-xam dañuy wax naan waxtu dafa mel ni jaasi soo ko daggul rek mu dagg la yan moo gën a woo moo gën a fort wurus kon yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel bu defee yii positivité ñi jéem koo jëfee i négativité ñi moytu ko su ko defee li ñu yàlla digoon ci koor gi ñi mën ko am mooy la'allakum tattaquun kon mbokk yi seen mbokk imam Mouhamadul Bachir Darame moo doon ñëw yow ci waxtaanu koor ci nan lañ mën a def ba am ragal yàlla bu defee ñi ngi ñaan yàlla mu defal ñi ragal yàlla ngir ñu mën a am li nga xam ne moom la diggee ci ragal yàlla in uridu ilal islaah mastata'tu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh